macha allah ñoo ngi nii ci buntu bi ñoo ngi nii bi macha allah gis nu mu taaruwee rasul fii lañu ko denc ci biir ñoo ngi nii ci buntu bi ba tey mbooloo mi embouteillage bi muy amee oui ah, ngeen embouteillage bi hmm. ngeen ñëwaat ci soppeem nuyu ko kon ngeen ne fan yii yëpp maa ngi woon Makkatal Mukarrama di fi nga xamante ne yonente bi foofu la juddoo dem nañ ci kër yonente bi macha allah tayaat ñu ngi fii ci Medina macha allah mu nawar ci dëkk bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi fii ci rasulullah fii lañu ko denc tey nag ñu ngi waat fii ndeysaan ànd ak waxal bi général di Thierno Moule Sow le roi médecine traditionnelle le king of the king maa ngi fii macha allah yonente bi fii lañ ko denc rasulullah fii lañ ko denc heure bi day xat nag day boloke feex heure bi moom day xat parce que julli salaatu bi ñëpp dañuy bëgg a dem moo tax ñëpp dañuy bëgg a gis rasulullah heure bi moom day xat xam nañ loolu macha allah parce que ñëpp ñoo koy bëgg gis macha allah ba tey ñoo ngi fii ci bërëbu yonente bi ba tey ñoo ngi fii ci macha allah xabru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fii tey ci xabru yonente sallallahu alayhi wa suma yaakaaru tey ak ëllëg gënal mu suma nday suma baay ñoo ngi fii tey ci xabroom wax nañ la asalaamaaleykum ya rasulullah asalaamaaleykum yow yonente bi nuyu nañ la asalaamaaleykum muhammad rasul salaamaaleykum Mouhamed Moustapha nuyu nañ la yow yenente bi suma turandoo doomi nuyu nañ la macha allah rasulullahi sallallahu alayhi wa musaan taxaw di jiite nit ñi fee la daan taxaw fii fii la daan taxaw jiite mimbar bi moo nekk noonu foofu daan taxaw di jiite jaam ñi foofu la ñu wax ne ak fu ñu ko denc foofu macha allah ci jardin aljanna yi la bokk jardin aljanna yi bokk macha allah kon euh, nañ ba foofu julli nañ fa heure bi fii day xat moo tax par heure la macha allah macha allah la sallallahu alayhi wa sallam daan taxaw di jiite fii fii la daan taxaw di jiite yonente bi Muhammad suma turandoo fii la taxaw di jiite fii la daan taxaw di jiite macha allah mu nekk noonu foofu la daan taxaw di jiite foofu la ñu wax ak uh, fu mu tëdd si jardin aljanna yi la bokk macha allah rasulullahi sallallahu alayhi fii la daan jiite mbokk yi foofu fotowu nañ fa dem nañ ba fii vraiment julli nañ fa incha allah moom fee la tëdd sallallahu alayhi wa sallam sànq laa leen doon wan ba may julli mooy julli fee laa kon nag nuyu nañ ko ya rasulullah la bar bi moo nekk ne fee la taxaw di jiite moo nekk ne foofu la rasulullah sallallahu alayhi wa daan taxaw di jiite moo nekk ni suma ginnaaw min bar bi macha allah buo na yung bagyo mo sinidya. rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fee la tëdd macha allah suma soppe fii la ne suma yaakaaru te ëllëg ndeysaan macha allah dem naa ba sa kër ndeysaan fépp fi nga jaar am na fu ma ci jot jaar dem naa ba ci xuntu ba macha allah sallallahu alayhi wa ba fu suñu borom wàcce alquran waaw fi ñu la doon wax ekra jàngal dem naa ba foofu macha allah turandoo def naa visit sa dëkk macha allah bëgg la nag sopp la rek ndeysaan yaa ma jaral bu may yëg montagne yi metti woon na loolu yàgg na ci xuntu ba metti woon na yàgg na waaye yaa ngi woon ak man yaa ngi woon ak man ca Màkka ci sama hôtel bi aussi macha allah fu ma nee rek nga nekk fa fu ma nekk nga fekk ma fa yal na yàlla fayal ma la yal na yàlla tax ci sa ak njaboot gi taalibe yi ak soppe di jàmm yi macha allah macha allah rasul fii la tëdd gën di mi fii la tëdd suma xarit fii la tëdd suma xaritu xool fii la tëdd suma genn waala fii la tëdd macha allah nabi fii la tëdd yaa rasulullah fii la tëdd gën di mbindeef yi la tëdd nabi tëdd salaamaaleykum ya rasulullah salaamaaleykum ya rasulullah sallallahu ala nabi macha allah suma suma suma wëllëre fii fii la tëdd sama xarit fii la tëdd ndeysaan kenn nabi rasulullah fii la tëdd dem naa ba sa kër fi nga gane see àdduna macha allah fépp nga jaar rek eh, am na fu ma fa jot a jaar macha allah sama soppe fii la tëdd ma suma ndey suma baay fii la tëdd suma yaakaaru fii la tëdd suma gënal suma ndey baay fii la sama xol fii la tëdd macha allah nuyu naa la sang-sang ñi nuyu naa la Seydina Muhammad rasul nuyu naa la yow yonent bi nuyu naa la njaboot gi yëpp nuyu nañ la njaboot nuyu nañ la mule mule nuyu nañ la famille bi yëpp nuyu nañ la soppe yi am di jàmm yi nuyu nañ la ah nuyu naa la yonent bi sallallahu alayhi wa naa la gën di mi allah nuyu naa la yow rasul yonent bi sallallahu alayhi fii la tëdd nabi fii la tëdd suma gan ñi ñoo may waaye maa ngi fi ci yonent bi macha allah yonent bi fii la tëdd भाई साहब भाई साहब जल्दी करो रस्ता जियारा सलाम रसूलुल्लाह मेहरबानी मीन अला रसूलुल्लाह चाचा बस बस बस मीन अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम man sa soppe Thierno Moule Sow nuyu naa la nuyu naa la yow rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam